jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey ji mooy ngëmu jigéenu doxandéem ja nettali bi mu ngi cosaanoo ci Macë saar fukk ak juróom aaya ñaar fukk ak benn ba ñaar fukk ak juróom Mark saar juróom ñaar aaya ñaar fukk ak ñeent ba fanweer yéesu jóge Israyel dem ba cib dëkk bu ñu naan tiir foofa mu dugg fa ci génn kër te bëggul woon kenn xam ko waaye terewul mbir mi siiw noonu bi jigéenu waa grek bu fa dëkkoon déggee mbirum yéesu te fekk doomam ju jigéen rab a ko jàppoon mu daw ñëw ci yeesu daanu ci ay tànkam jigéen jay jooy naan borom bi doomu daawuda yërëm ma sama doom jigéen rab a ko jàpp te metti na lool ci moom noonu mu ñaan yeesu mu dàq rab bi yeesu tontuwu ko dara noonu taalibe na yeesu dàq ko ndax mu ngi yuuxu ci sunu kaw mu gi yéesu tontu ne ci waa bànn israel yu réer yi dong lañ ma yónni woon noonu jigéen ji ñëw sukk ci kanamam ñaan ko ne borom bi dimbali ma waaye yeesu ne ko jaaduwul ñu jël mburum xale yi jox ko xaj yi yéesu dafa wax loolu ngir natt ko dafa doon wax ne liggéeyam bi jiitu ngir waa israel la mu dokkee teg ñeneen ñi waaye jigéen ji ànd ak muus tontu waaw borom bi waaye xaj yi sax ci suufu tegukaay lekk gi dañuy lekk ñam wi xale yi rotal noonu nanga woon na jël lu ko yeesu mën a may yeesu ne ko jigéen ji sa ngëm réy na sa ñaan nangu na gannaaw tontu lii mën ngaa dem rab bi bàyyi na sa doom ju jigéen te ca waxtu woowu la doom ja wér mu ñibbi këram fekk doomam mu tëdd ca kaw lal ba te rab ba jóge fa fii la nettali bi yam nanu jàng aaya bii am ngëm lii lay tekki dafa nuy wóor ne li nuy yaakaar dina am te it li ndul gis nekk na yawut yi saar fukk ak benn aaya benn